lumière bi nga xam ne itam mooy niital ki jaar ci yoonu yàlla ba fu mu toll rek muy xam fu muy teg tànkam di xam itam gàllankoor yi nga xam ne ñoo nekk ci kanamam mu man di ko wattandiku te loolu nag jamono bu ne la dee fi ko soxla suñu boroom nag soññee ci bu baax ba sax di ci digge ay daraja ak di ci tagg ñi nga xam ne ñoo ne ci yoon woowu nga xam ne lu mu ci wax bu fekkee aw tagg la ña ca nekk ñoo ko moom waaye tagg wa itam dana doon loo xam ne ña ca àggagul danañ ko soxla lool mu doon ak soññ ci ñoom pour ñu àgg ca loolee bu demee ci alxuraan dañuy fekk muy wax ne shahida allahu annahu laa ilaha illa huwa almalaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist laa ilaha illa huwa al azizul hakim suñ borom di wax ne moom suñ borom ci boppam seere na ne amul benn buur bu dul moom malaakaam yi nga xam ne itam leer kese lañu amuñu benn nëx-nëx seere nañu loolu waaye mu teg ca ñetteel bi nag ak boroom xam-xam yi ñoom itam seere nañu loolu ndax xam guñ xam ak màndarga yu ñu am yu leer naññ ci ne suñu boroom rekk mooy buur kon foofu itam suñu boroom jublu na fee jox daraja ju kawe kawe ñi nga xam ne ñoo am xam-xam waaye jublu na fee itam ñi nga xam ne ñoo ëmagul xam ngir ñu bokk ci martaba boobu nga xam ne suñu boroom da ci tagg ñi nga xam ne ñoo am xam-xam di wax itam faneen ci beneen barab ne yarfaillaahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajaat di wax ne suñ boroom dana yëkkati daraja ñi nga xam ne dañoo gëm dana leen yëkkatil ay daraja waaye ñi nga xam dañoo am xam-xam itam dana leen yëkkatil ay daraja daraja yooyu nag daraja yi àdduna lay doon ak daraja yi loolu itam di ak soññee bu màgg-màgg ndax ku ne xam na doomu aadama ku bëgg ak yëkkatiku la ci àdduna waaye rawatina nag àllaaxira ga nga xam ne fa lañ jëm kon bu suñ borom ne ñi muy yëkkati borom xam-xam bokk na ca loolu ak soññee gu yaatoo yaat la moom itam ci sàkku ji xam-xam ak itam sa njaboot ak ñi nga yilif ñépp nga fexe ñu bokk ci borom daraja yooyu nga xam ne ñooy am daraja yu ëllëg yi ak daraja yi tey ndax bu ëllëgee kenn ku ne. ña nga jiite woon sëg yëg seenu yëkkatiku day doon sa ndam lu yaatoo yaatoo yaatu waaye seenu suufe nag moom itam day doon sag ñàkk ndam bu yaatoo yaatoo yaatu gannaaw fii ci àdduna lañ ñàkk nag kenn ku ne war ngaa fexe ba ñi nga xam ne ñoo nekk ci sa bokk ci ñi gën a kawe daraja ëllëg àdduna itam ñu bokk ci ñi fi gën a kawe loolu dana doon ndam lu mat sëkk ci àdduna ak àllaaxira danañ ñëw ci sëñ Touba ni mu doon faggoo mbooloo mii ñu bokk ci ñi nga xam ne ñoo génn ñoo gën a féete kaw daraja ci àdduna bokk ci ñi nga xam ne itam bu ëllëgee ñooy gën a féete kaw daraja te daana wax ne képp koo xam ne jaaroo ci yoon woowu ma xàll ngir bëgg ko ci aw bokk ci ñu gën a màgg daraja tey ak ëllëg képp ku ci jaarul jëriñoo ma dara ak leneen loo mën a defar ak jëriñoo ma dara liñ ko mën a jëriñ rek mooy fas yéenee jaar ci yoon woo xam ne ëllëg dañuy bokk ci borom daraja yi nga xam ne ñoo gën a màgg foofa ba tey suñu boroom di wax ne innama yaxsha llaha min ibadihi l ulama suñu boroom di wax ragal yàlla lim ci wax lépp inna allasina yaxshawna rabbahum bil gayb lahum magfiratun wa ajrun kabir wax ne ñi nga xam dañoo ragal seen boroom danañ am ak njëggal danañ am tuyaaba yu rëy yoo xam ne mën na leen a jural àjjana mën leen a jural ngërëmul suñu borom li nga xam ne moo gën a màgg ajjana mën leen a jural ay daraja ca yoo xam ne danañ ko mën a ram moo mbooloo mu dul jeex yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne ragal yàlla de ci la yiw yëpp daje mbooleem lu baax rek ragal yàlla lañ koy amee kon nag suñu borom bu ne waaye ragal yàlla boobu kat mënee su ko am ci xamoo amu xam-xam mooy xamoo suñu borom ci boppam ndax loo xamul doo ko mën a jox cëram na nga ko ko war a joxe kon foofu itam ak soññee gu yaatoo yaatu nekk na ci ci wut xam-xam yonent bi sallallahu alayhi wa ñëw moom mi nga xam ne moo doon xàll yoon wi lenn lu nekk mu wane nañ ca war a doxe lenn lu nekk it mu wan ñu ne ña dox lii lañ cay góobe lii lañ cay gara yonent bi sallallahu alayhi wa itam ñëw ci wàllu xam-xam wax ci lu yaatu ci ay soññee ak ngëneel daana wax ne li kulli shay'in tariqun wa tariqul jannati al ilmu daana wax ne leen lu ne day am na yoon wu ca jëm ku ca bëgg jaar ku ca bëgg àgg dangay jaar ci yoon wu ca jëm daan yoon wu jëm àjjana nag moom mooy xam-xam xam-xam mooy yoon wi nga xam ne ci lañ mën a jaar ba dem aljana ndax aljana moom tënku ci ay ndigal suñu borom yi bàyyi ay tereem ginnaaw bu coobaree suñu borom jàllee moo fa yóbboo te loolu kat xam-xam ngay am ba xam li yàlla digle mooy nangam li mu tere mooy nangam lenn lu nekk nga xam ak tereem fa mu toll sag wattandiku man ko mën a ànd ak moom lenn da nga xam degare bi nga xam ne moom la am ci ndigal sag sàmm ak sag euh, matale mën a ànd ak moom bu ko defee nag kon yoon woowu nee na moo yoon wi ñuy jaar ba àgg aljana yonent bi sallallahu alayhi ba tey daana wax ne urdu aliman aw mutaalliman aw mustamian aw muhibban wala takunil xaamisa fa tahlika daana wax ne kenn ku ne war ngaa fas yéene xëy di wut xam-xam ba nekk boroom xam-xam wala nga xëy di wut xam-xam ba lu la lu la ca fekk def sa kem kàttan ba munta nekk borom xam-xam itam ñu xam ne wàcc nga def nga sa kem kàttan wala bokk nga ko doon koo xam ne foo toll yaa ngi diglu xam-xam loolu lay yokk sa xam-xam wala nga doon koo xam ne da ngay bëgg xam-xam ci sa xol bëgg ña nga xam ne ñoo cay yëngu ak ña nga xam ne ñoo cay xamle waaye nag nekk ak juróomeel moom ëpp naa def ndax mën naa juróom nit ki alkande kon nit ki day fas yéenee doon boroom xam-xam fas yéenee ak njabootam yépp mu teg leen ci yoon wuñ doone boroom xam-xam yoon wa ñu jaar ba àgg ca nag mooy xam lu ak diglu ak bëgg yooye nag ku ci amul benn moom bu dee boppam la nee na mi ngi teg ci boppam yoonu alkande bu dee ak njabootam itam mu ngi leen di jaarale ci yoonu alkande yoonu rëccu ba tey yonente bi sallallahu alayhi daf daan wax ne alxuduwu war rawaaxu fi taallumil ilmi afdalu inda allaahi min al jihaadi fi sabilillah daf daan wax ne xëy ak gontu di wuti xam-xam moo gën fa yàlla jël jaasi jàkkaarloog noon yi jaay leen sa bakkan wala nga jël seen bakkan te lépp yàlla kese kese rek tax yëkkati baatub yàlla bi rekk tax nee na loolu xëy di wuti xam-xam gont di wuti xam-xam moo ko gën a màgg fa yàlla moo ko ëpp daraja fa yàlla te kon a xam na ne mettit ak jaayante mi ngi mën a yem ci jël sa bakkan fa yéene ko ñàkk te yàlla rek tax loolu nag lépp lu ñu wax moo ko gën a màgg lépp lu ñu wax ne moo ko ëpp daraja loolu ab dayoom ak màggaayam jéggi na dayo ndax bakkan dafa foor ak dund moom daa lépp loo xam ne jar na def ko ca màgg na ndax jihaad lu ne yonent bi salaa salaam wax na ko ci ak màggaayam jihaad mooy li nga xam ne ku ci faatu sax jërut sang jërul jullee ndax suñ borom yàkkamte na ko yàkkamte koo xam ne daanaka sax ci misaal mënta xaar sax ni di ko nekk di ko jullee ko sànq ka def day bëgg ñu daal di ko koy yëpp noonee rek mu tàmbali koo teral tàmbali koo dara jaal tàmbali koo jox ay ndamam moo tax yére yam solo nag dara jëm taxoo nag lépp dañ koy boole rek dencaale ko ko ngir yàkkamti ko ko suñ borom di yàkkamti ci waxee lu toll noonu nag wut xam-xam ci xëy yi ak ci ngoon yi. yonent bi salaa salaam nee na moo ko gën loolu li ci nekk ci ak soññee ak ngëneel kenn xamul nu mu toll sàkku xam-xam googu nag nga xam ne moom la suñu borom wax loolu ma tudd léegi yonent bi salaa alayhi wa moom itam wax ci loolu ma tudd léegi sàkku gi nag léegi ban wàccuwaay la am ci jullit bi ban taxawaay la ci jullit war a taxaw loolu it yonent bi moo ko jàngale moo wax ne talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima sëñ tubaa way ko wax ne talabuhu faridatun muammama li kulli muslimin wa kulli muslima mu wax ne sàkku xam-xam farata la ci jullit bu góor bu mën a doon ak jullit bu jigéen bu mën a doon kon xam-xam moom jullit ñépp a ko soxla góor ak jigéen mag ak ndaw ñépp itam ñoo ko war a jéem wut kem li leen yàlla kàttanal farata nag mooy loo xam ne gàll na ci sa kaw boo ko matalee wàccoo nga ak sa borom bi la ko gàlloon waa diggaaleeg moom ci diggaale goo xam ne suñu borom ci boppam ak ñam koy digal ñoo koy seq ak moom farata moom mooy loo xam ne ku ko def wàcc ku ko deful nag ay daan yu diis a diis mooy tege ci sa kaw xam-xam nag wàcc waaye boobu la am ci ab jullit muy loo xam ne bu ko deful lu ne ci ay daan mën na ko caa fekk lu ne ci ay wóoradi ci àdduna mi ngi ci lu ne ci ay wóoradi ci àllaaxira mi ngi ci ndax ku ne xam na ne ñàkk xam la tuddi ak réer ak réer nag dana dugal nit ki ci lu nekk daanaka li ñuy jàmbat ci jamono lépp ak li ñuy jàmbat ci biir diine ji lépp wala ci biir yoon wi lépp ak réer rekk ko waral Cheikh Mouhamadul Mourtada ibnu Xaadim Rasul radiyallahu taala daana wax ne li ñu jaaxal ak te li ñu naqari lépp ak réer ñu ko yóbbi bu ñu fexee ba ak réer jóg fi rek li ñu naqari lépp dana dana fi jóg te kon ñàkk def xam-xam muy farata nag muy jur réer bu mel noonu yonent bi sallallahu alayhi di wax ne wa inna taalibal ilmi yastaghfiru lahu kullu shay'in xatta al xiitaanu fi l nee ki nga xam ne muy wut xam-xam lépp da koy ñaanal yàlla ak njëggal ba ci jën yi ci géej gi sax dañ koy sàkkul ci yàlla ak njégal loole it lépp rek yonent bi salaa salaam day dàkk di xool li nga xam ne nit ñi dañ koo soxla lool te mënuñu koo ñàkk saa buy soññee ci mbir nag da wax rek dayo ba mu am ci wet googa ak la ci suñu boroom jigéen ndax xam na ne ak njëggal moom lu waay sell sell rek soxla nga ak njëggal te ak njëggal kenn du ko doy ak jéggalu yàlla kenn du ko doyal bu kenn doon ko doyal yonent bi sallallahu alayhi dana ko doyal te moom daana wax ne bis bu seddee danaa jéggalu sama borom lu ëpp téeméeri yoon te ku na xam ne moom ku set wecc la koo xam ne waaye ak njëggal da du doy te njëggal day takku ci kem darajey doomu aadama bu ñu toll kenn ku ne nam toll ak fa mu waroon la mu waroon am ci ay daraja ak njëggal mën na ko caa àggale te yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na kiy wut xam-xam lépp da koy jéggulul yàlla malaaka yeeg yonente yeeg jinne yeeg ba ci jën yi bàyyi muy sax ba ci jën yi ci géej gi sax dañ koy sàkkul ak njéggal fa suñ borom ba tey yonent bi sallallahu alayhi wasallam daana wax ne talabul ilmi afdalu min as-salaati was-siyaami wa xajji wal jihaadi fi sabilillahi azza wa jalla daana wax ne sàkku xam-xam de moo gën julli moo gën woor moo gën aji makka moo gën jihaad ci yoonu yàlla te mooy xeex ci yoonu yàlla ba sa bakkan man cee des nee na loolu lépp sàkk xam-xam moo ko gën ndax moom sax moo ko war a jiitu ndax yooyu yëpp ñu wax ci julleeku woor ak aji makka ak lu ci nekk bu nit ki amul xam-xam ak defam ko mën naa yàqu te du ko yëg ak defam ko itam du mat nam war a mate ndax suñ Tuubaa day jàngale ne mu kàllaf mi xaram na muy def lenn lu sariya digle te xamul ay farataam ak sart ya ca aju ak la koy yàq ak njuumte ya nga xam ne bu ci amee na lañ koy defare bu ko xamul nam ko war a xame rek day wax ne loolu bu ko dee def itam du jariñ bara kon xam-xam lu julli bari bari bari bu fekkee nit ki tegu ci ak xam lu woor bari bari noonu lu aji màkka bari bari xeex ci yoon yàlla lu mu bari bari te xam li ngay def am ci pas-pas jiituwu ko loolee mën naa ban a jëriñ nit ki dara moo tax kon xam-xam bu ñu ne moo gën yooyu mooy moo leen war a jiitu mooy tax ñu wér ñàkk gee sàmmonte itam moom xam-xam mooy tax ñu bañ wér ba tey yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne akrimul a fa innahum warasatul anbiyaa yi fa man akramahum faqad akrama allaha wa rasulahu daana wax na ni ngeen teral borom xam-xam yi ndax ñoom kat ñoo doon yonent yi ku leen teral yàlla la teral ku leen teral ku leen wooye doyadal nag moom tam ba tey yàlla la doyadal moom la suñ tubaab di wax na fa innam fa innama ijlaalu aalimin amil ijlaalu rabbil arsi fii maa qad kon loolu lépp yi tam ba tey ak soñña la rek ndax teraanga itam ku ne bëgg na ko bu yonent bi ne ni ngeen teral borom xam-xam yi dafa bëgg ñépp am pas-pas fas yéene bokk ci borom xam-xam yi ñëpp itam am pas-pas jàngal seenu njaboot ba ñu xam li ñu war a xam ba bokk ci teraanga jooju nga xam ne moom la seen boroom bi santaane ñu di ko jëmali ci ay jëmm ba tey xam-xam nag day ñaari xam-xam xam-xam bu am njariñ ak xam-xam bu amul njariñ al ilmu ilmaani ilmun fil qalbi fa zalika al ilmu naafi wa ilmun fi lisaan fa saalika xujjatun alam ni aadama loolu xaddis la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam-xam ñaar la xam-xam boo xam ne ci xol lay nekk ak xam-xam boo xam ne ci làmmiñ rek lay yem xam-xam bi nekk ci xol nag ak leer lay doon ci biir xol bi dafay setal xol bi ba xol bi nekk xol xol bu mucc dafay leeral xol bi ba nekk xol bi nekk xol boo xam ne day mën a taatan leeri suñu boroom xam-xam boobu nag mooy bu am njariñ mooy xam-xam bi nga xam ne mooy dindi nit ki ci ak euh, waw xol di dindi ci moom ay ñaaw-ñaawi xol ak i gàkk di def ci moom ay leer ak jikko yu rafet ak ak sell ba daraja yi nga xam ne moom lañ wax ci borom xam-xam yépp mu mën koo am waaye ñaareelu xam-xam bi moom mooy xam-xam bi nga xam ne ci làmmiñ rek la yem ñu koy wax nga xam ne daal xam nga li ci alquran wala li ci hadis yi ahadis yi wala li ci téere yi mën nga ko nett li saw làmmiñ rek waaye nag buñ xoolee ca sa xol moom sa xol na mu war a sete des des na nanga war a jëfe xam-xam bi itam ba mu def meññatum leer moom mooma ci sa xol des na xam-xam boobu mooy xam-xamu riwaaya mooy xam-xam bi nga xam ne ci làmmiñ rek la yem xam-xam boobu nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na bu ëllëgee mooy yey boroom mooy doon aw layam te moo koy yey moom la ñuy lijjante moom lu la teewoon a xam loolu sax lam tey am lam ci mën a am ay benn benn lay fekku ci ki nga xam ne xamoon na ba noppi te jëfewu ko kooku moom amul lu ñuy lijjanteek moom yow moom li nga waroon def lépp xamoon nga ko ba noppi defoo ko kon yow féeteel nee wenn lay amoo ko moo tax Sëriñ Tuubaa di wax ci Masaalikul Jinaan di wax ne fal ilmu in lam yufdi saxsan lil huda fa innahu yajurruhu ila rada li anna ilmahu yasiru xojja ghadan alayhim faxsha tilkal xojja muy wax ne xam-xam moom nit ki da koy jàng di ko jëfe te yàlla rek tax mu setal xolam leeral xolam yóbbu ko ca daraja yi nga xam ne ñoom la suñ borom doon tagg noonu ci alxuraan am na luñ ci tuddoon walla boog nit ki am xam-xam bi sàkk ko ba noppi jëfewu ko mu yem ci man koo nettali kese kese rek waaye dund ko bu boobaa nag xam-xam ba da koy ñoddi rek jëmi ko ci alkande ndax xam-xamam boobu mooy nekk aw layam bu ëllëgee woo xam ne moo koy yey ba lenn lu mën a lay du ko am nee na nag na nga ragal xam-xam di la yey kenn ku ne war ngaa fexe ba xam-xam di nekk saw lay te ba a nekk sag yey saw lay mooy bu ëllëgee ñu xam ne lépp li nga waroon xam yaa ngi ko doon xam te yaa ngi ko doon jëf sa kem kàttan kooku da ngay daal di set wecc am aw lay bu dëgër waaye nag mu nekk yeyu nit mooy nit ki xamoon ba noppi nag jëfewutoon wala boog mu ñàkkoon a xam loolu it amutu lay ñàkk xam tam amut benn lay ndax suñ borom daa wax ne ni ngeen xam bu ngeen xamul ni ngeen di laaj kon nag mënees naa am ngantul xam waaye am ngantul laaj moom mënee su ko am ndax lenn rek ko mën a jar jural muy ëgg rëy te ëgg rëy moom daa bokk ci yi nga xam ne jullit bi da ko war a sori sori goo xam ne bu fekkee moo ko teewoon a def dara loolu boobaa deesu ko faaleek moom ba tey yonent bi salaa salaam daana wax ne boroomu xam-xam buy jariñoo xam-xamam moo gën junni jaamukatu yàlla moo leen gën daraja ëpp leen daraja ki nga xam ne jaamukatu yàlla la waaye ki nga xam ne nag moom am na xam di ko jariñoo di ci jariñe nee na kooku mu ëpp daraja ki nga xam ne jaamukatu yàlla la boo xam ne ci moom boppam rek la yem ndax xam nga jaamu ko yàlla moom sa bopp rek lay jariñ waaye xam-xam bi ñuy jariñoo nag moom dalay jariñ yow di jàll di jariñ ñeneen mën a jubbanti aw nit mën a fekk nit ki nekk ci ay njuumte yu rëy yoo xam ne mën na ko jural ci ay musiba lu kenn xamul nu mu toll jariñ gi ngay jariñ ci sa xam-xam man ko caa génne dugal ko ci leneen loolu nag fekku fi ki nga xam ne moom daa beru rek wala daa nekk rek ci ak jaamu yàlla boppam kooku moom boppam rek lay sawe waaye ki nga xam ne dafa am xam-xam nag wala mu ci yëngu te di ko dund nag kooku moom mi ngi sooy boppam te mën naa rawale mbooloo mu dul jeex te yëf yi nag li ndam dëgg-dëgg mooy dem di yóbbu mbooloo waaye di dem yow kese kese kese rek baax na waaye la gën a baax mooy waxtu wu nekk rek yaa ngi dem di yóbbu mbooloo moo tax li Seex Saalihu Mbàkke radiyallaahu taala anhu daan wax ne du dem mukk di leen bàyyi fu ma leen rawe danaa taxaw nekk leen bu ma leen séenul danaa leen gàttandu si bu ma leen séentoo fekk ngeen dem itam danaa leen dabo ji waaye duñ dem bukk ngeen tàggoo nga xam ne kooku kon ni mu doon jiitee fu mu toll rek mbooloo mi mi ngi jiital ñenn ñi ñuy dox ña ca gannaaw mu ngi leen di dabu ji ña nga xam ne ñoo ko jiitu mi ngi topp ci seen gannaaw fuñ naree jàdd mu jubbanti leen fuñ naree sorox ci kàmb mu wëlbati leen kon loolu mooy xam-xam bi nga xam ne nit ki da ko jariñoo di yóbbu mbooloo mu dul jeex moom Cheikh Saliou Mbacke daana wax ne ku dem ma dem de baax na waaye nag lay gën ji ndam mooy di dem yow sa bopp te yóbbu mbooloo foo toll te moom ku ne xam na ne noonu la doon doxee ba tey yonent bi salaa alayhi bokk na ci ay waxam yu muy soññee ci xam-xam daana wax ni nit ki de bu fekkee daa wut xam-xam te yàlla rek tax lépp a koy ragal yàlla dana ko defal ak rag lu goo xam ne ku ko gis doo ko ñeme kaaraange la ko yàlla defal gu baatin goo xam ne boo ko gisee faw da nga koy màggal ci sa xol doo ko sañ a bañ faw ku yëkkati woon lor jëmmi ci moom itam xanaa ñàkk koo gis waaye bu bëtam ne tegg ci moom rek dana am lu dugg ci xolam lu ko ragal loo ba yéen ju ñaaw jum amante moom wala ay pexe dana ca dellu gannaaw waaye nag ki nga xam ne daa wut xam-xam te yàlla taxut wala jëfewu ko nam ko war a jëfe kooku moom mooy ragal moom ci boppam mooy ragal lépp lu mën a doon nga xam ne safaanub lay doon kon foofu itam yonent bi mi ngi tàqalewaat rek ñaari xam-xam yi nga xam ne ñoo am te mooy xam-xam bi nga xam ne moom yàllaa tax nga di ko wut te di ko dund ak xam-xam bi nga xam ne ci làmmiñ kese la yam nit ki da koo am rek pour dund ko bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi alwahid alqahhar rabbi samawati wal ardi ma baynahuma al azizul azizul ghaffar wassalatu wassalamu ala al mab'uusi lil xalqi bit tabshir wal inzar sayyidina muhammadin bi alihi wa sahbihi ulil aydi wal أما بعد فيا أيها الناس تذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا ككأنك غريب أو عابر سبيل أيها الناس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا بميزان الشريعة جميع أعمالكم فما وافق فيها فما وافق منها قصدان الشريعة فدوموا عليه وما خالفه فتوبوا منه واجتنبوه واعلموا أن ما في الدنيا خير وأبقى وأن ما في هذه الدنيا قليل يفنى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أيها الناس اعبدوا الله واشكروا على نعم لو لو رام فرد من أفراده لو رام فرد من أفراد العباد أن يخسع ما أنعم به عليه في خلق عضو من أعدائه أو حاسة من هواسه lam yaqdir ala dalik fa kayfa bima ada dalik fa kayfa bima ada dalika min anniami fi jamii ma xalaqahu llahu fi badani fi badanihi wa anniami alwasilati ilayhi fi kulli waqtin ala tanawwu'i ala tanawwu'iha wa ixtilaafi ajnaasiha allahumma inna nas'aluka ala nicmatin an'amta biha alayna mimma la ya'lamuhu illa ant allahumma allahuma salli wa sallim ala sayidina muhammadin sayidi alawalina wal axirin salaatan turdiika wa tarda biha anna الحمد لله الذي تتحير تتحير دون إدراك جلاله وعظمته القلوب والخواطر وتكل في في مبادئ إشراق أنواره الأخلاق والنواظر نحمده تعالى ونشكره على ما له علينا من صنوف الإحسان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل يوم هو في شك أما بعد faalamu anna ibaadata llahi hiya sababu lfawz hiya sababu lfawzi wannajaax wa sabilu saadati walfalaax qaala taala wa ma xalaqtu ljinna wal insa illa liyacbuduun wajtahidu cibaadallah an laa yaraakum mawlaakum xaytu nahaakum wa an laa yafqidakum xaytu amarakum wa fi lxadis almuhaajiru man haajara man haajara suuf walmujaahidu man jaahada nafsahu wa hawaahu واغتنموا في شهركم هذا النثر القليل منه الباقي فإنه أحد الأشهر الحرم التي العمل الصالح فيها عند الله يذكر فإنه كل وقت كل وقت رحمات كل وقت كل وقت كله وقت رحمات وعطيات فإنه كل وقت رح فإنه كله وقت رحمات وعطيات واغتنموا هذا هذا الخير العظيم واعلموا ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره يغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين